de li ci am solo mooy Waly sekk ci boppam na xam ne yàlla moo dogal ñu tooñ ko yàlla may ko dëgg it ci kanam ñu ko tooñ ndax bu fekkoon ne yàlla mooy ko dëgg duñ leen arrêté ndax ñooy bu fekkoon na Waly Seck amul dëgg duñ leen téye kon gannaaw bu mu xamee dëgg ba yàlla may ko dëgg da jéggale ci biir dëgg jooju. mën naa nekk dëgg de ndax biñ ko laajee quatorze personnes ñëw dee. bi ñu ko laalee quatorze personnes yu dee ay alal ju bëri ñu yàqu ci Sénégal ñëpp a génn ñëpp am problème li yàqu ci àdduna ci jamono boobu kenn xamul ni mu toll bu fekkee bu ñu ko bëggee laalaat loolu moo yàquwaat kon wax na dëgg dossier bi duñ ko àtte jërëjëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel kii ma jàkkaar loolu ñun ak moom yàgg nañu sur BGTV di Cheikh Mouhamed Lamine Dramé ñu gën ko xamee ci borom bëy bi ne naa ko secret béy bi yow la ko yàlla dénk loolu la yàlla dogal ku mu neex ak ku mu naqari li mu mën ci bëy xam ko ci bëy di ko def ci bëy di ci faj ay aajo jaam ñi ci bëy moom rek la ko yàlla jagleel Cheikh moom Lamine Dramé ñoo ngi lay nuyu bàyyi la nga néew ñu lay seetaan si BG TV macha allah sëñ Bour ñu ngi lay fay bu baax a baax di nuyu waa BG TV yëpp di leen ndokkeel di nuyu sa caméraman bu macha allah di nuyu waagaan macha allah ak suma sofoor bi Papa Ndiogu Dibo suma xarit suma soppee suma financier Mar Diang maa ngi koy nuyu di nuyu koo xam ne yaa ngi seetaan site bi di la ñaanal suñ kàddu yàlla na la fekk ci jàmm di la wax buur waaleykum salaam wa rahmatullahi nee na ma buur sëñ Lamine li mu waxoon ci béy ak li mu ci man ba tey dégg gu ma sëriñ bu ko ci wax. waaw waaw lim la wax de wér na ndax li ma ci yàlla mayoon de jëlagut ko mm-hmm. te itam yàlla mi ma ko mayoon. bu ko jëloo it danaa gore ba ñëw taxaw nangul ko ko jaajëfal ko ne ko jërëjëf. yaa ma mayoon yaa ko jël waaye nag jëlagut ko. Mm-hmm. la ma ci yàlla mayoon ba tey maa ngi koy man maa ngi koy daf la ma la ma ci doon daf day gën da yokk waaye nit nag bu la yàlla joxee ay loxo nga mën da tubb mën da yëgati mën da daf da nga koy sante borom bi. Mm-hmm. bay karaama gi ma ci yàlla may ak li ma ci defal ma ne yàlla defalul ko keneen de waaye man tegaguma ko bët. ndax bëy ci dëj lañ koy rey bëy lañ koy rey bëy du accidenté bëy du feebar secret boobu sëñ bi noo ko jàngati noo ko jàngee ba xam. waaw bëy la xam nga léeg-léeg nga gis ku toog ci télé na faax ni ñëpp da ko wër mu ne man maay borom jinni yi wala ko ko monde jinni yi dañoo ñëw nangam nangam fekk dara amut ci. Mm-hmm. dafay léeb rek yellantoon buy wax sax mu ne amoon na fi. Mm-hmm. su boobaa ñu xam ne day léeb waaye bëy yàlla dafa dëxëñ ci moom loo xam ne tey. gis nga geenam boobu. Mm-hmm. boo boo bëggee bu fekkee da nga gis nit koo xam ne tey dafa dafa taxaw yàlla may ko lu bëri ci àdduna nga bëgg suturaam xawee ko xadduna bi yëpp xëy ba ko wala li mu yoroon yëpp xëy mu xëy ñàkk ko génn ak béy boobu ci nga koy liggéey. Mm-hmm. béy su fekkee da ngay liggéey ci nopp béjjënam bi moo la koy defal béy su fekkee da faj ci rab ci boppam béy bi ci koy liggéey mm-hmm. béy su fekkee da ngay def ci cat ci ci ci ci làmmañu béy bi ci ngay liggéey ci cat. bëy su fekkee da ngay def lu mel ni musluwaay lu mel ni euh, yenn ndomba protection yi lu mel ni tamit ba tey yenn ndombay bayre yi gannaaw boo ko liggéeyee ba pare deret bëy bi moom ngay jël boole ko yàlla bu mu nekk nag gàttab dëj hmm. gàtt boo xam ne ci dëj lañ ko rey su boobaa boo koy liggéey loolu ñuy wax wextan wi te mu hmm. nekk ci foie bi foofu nga koy foofu ngay tubbee soo ko laaj nag ci mbaq biir bi neefere yi ne ci biir biir bi liggéey ko ay ay ay pasaki ay dégg ak ay baga parce que nag dama bëgg sori ci dëgg-dëgg baatin mm, mm. parce que baatin mag ñi dañoo wax ne muy lu nëbbu te mbóot waxtu wu génn rek pomp nga koy xaar te bu ko pomp laale mën na koy rey mm. looloo tax baatin lu ci bëri dañ koy nëbbu waaye daal ci côté yooyu da ngay gis ne euh, matière yu xeet xam-xam yoo xelaat ci mystique am na ci béy xeeti xam boo xelaat ci am na ci béy dafa mel ni bëy rek la yàlla may particulier boobu ci mala yi. waaw moom moom li man ci mboolem liggéey moom rek ko ci man moo tax suñ xarit Mbaye Guèye Faye ndokkel na ko. wallaay nee na mala yëpp bëyee ko ci gënal. ndax da nga ci mu ne ndax da nga ci lekk sam yàpp foot ci sam dënd bu doon élection yow lay wateel. yow lay wateel dëgg la <laughs> kon bëy secret yu am doole sëñ bi wàllu samp nit. <laughs> doon nañ ci wax lu ama ama ama am solo nga ne ma buur bu ma jógee pour samp nit. gisuma ku lay mën a tee maanaam ku lay sempiti ci àddina ku lu yàlla. waaw maanaam li ko wéral te wéral ko dëgg mooy bu ma jogoon pour xeex nit te am matériel yi am bagage yu doy exemple man su ma jogoon pour ne Macky Sall mii laay xeex fii balaa deux mille vingt quatre dana xat Sénégal xat goo xam ne dana bëgg génn Sénégal te ma am matériel bu ko mat exemple ma ne opposition yi topp Macky Sall ñoom laa war a para paru jàkkaarloo ñoom. tama am matériel yi ko mat am jumtukaay yi ko mat. Hmm. <laughs> wallaay walxasim nga gis lu leer. Hmm? waaye nag ni ko mën a defee ci xeex bi noonu ko ko mën a defee ci samp bi tam ba tey. man de avant élection yi woo nga ba. waaw ne ma diw. Hmm. sa xarit la. ma ne la waaw. nga ni ma su ñëwul ci man élection yi mu jëm da koy ñàkk. wax naa la ko wax naa la ko. billaahi wallaahi wa taala. wax naa la ko. te ku ma ne woon dana ñàkk élection yi du ma ko gëm ca. wax naa la ko wax ko wax ko keneen ku ko jege moom. yàlla rek ma tiim ku ak sa bàq. wax naa la ko wax ko keneen ku ko jege. Hmm. da yàq xaalisam rek. waaw wax naa la ko wax ko keneen koo xam ne. Hmm. Euh, jege na ko moom. Hmm. muy Adama fay ci boppam. Adama Faye rakk Maram fay Sall wax naa ko sànq ci émission bi ma def. maa ngi koy lancer devis bu amee lu mu may jox buy ñëw na ko ba këram man dama ko bëgg a soowee dimbale ko ngir yàlla. Mouhamed Lamine Dramé borom bëy gune gi dëkk Saalum nee na nga bal li nga jàppoon yëpp te bañ a jàpp ne sëriñ ab internet la. nga bañ a jàpp it ne ku feeñ ci internet bi xamul dara bul jàpp ci yii yëpp benn taxawaayu Arafa dañ koy wane télé haj màkk gi dañ koy wane télé xeej dañ koy wane télé. naafale dañ koy wane tele te léppay dëgg jàng alxuraan dañ koy wane tele kon nag danañu génne lu baax nag ndaam waaye xamal gëm-gëm rek yow sol sa daal na Mouhamed Lamine Dramé lay seeti sur loolu nag sa politique day gën di yàqu parce que sa politique kat appi na doo ko gëm waaye nag boo xoolee li nga yàquleegum lim yàquleegum fi mu toll ak fi ñu jëm bëri na. sëñ bi ci moom Adama dama ko bëgg d'abord. Hmm. ndax nit boo ko bëggul doo ko yéene jàmm parce que aadama loo ko mën a waxal xam na ku sell la moom mhm. boo jàkkaarlee kanamam rek image bu sell ngay gis ci moom mhm. loolu dafa bokk ci li ma gën a neex ci moom mhm. dafa set waaye nag dama koy yéene parce que avant muy dem élection billaahi wallaahi wa taalaahi man ñaar man mi nga ma man kay du ma man gënaloo ma suma bàmmeel aadama gënaloo ma woo nga ma man téléphone dama la ne man laa wax ñaar ñi ma amoon ci leader te ñu bokk ci waa kër Macky Sall yi te ma leen doon ñaanal Dramé da doon ñaanal ta ñu may dégg dama ne gañe nañ billaahi wallaahi wa tàllay gañe nañ Adama su ñëwoon ci man bu <laughs> yow comme Adama bu ñëwoon ci man day réussir carte gi day leer. wallaay wax nga ko de. waaw nga ko sax ci émission yu jiitu deme naa ne fekke na ko waagaan ko waaw waaw wama shahidna illa bi ma alim na avant élection yi avant ñuy arrêté Ousmane Sonko bu njëkk ba mm. coowal Adji Sarr avant muy dal ci yàqu-yàqu yëpp laa ñu jëlaa toog wax man ak yow. ñu ko fii waxee woon ci salle bi ñu toog tey. mais nag Sénégal nee ko te waxee. Mm, mm. parce que da ngay wax ba pare. day dem sax ba ñun ñi ko jege sax. dañu am problème mu wax ko. non ndax njorti ni sax boo ko waxee. dañuy foog ne complot la wala nangam la wallahi azim man man doxuma ci yooyu. man du ci yëpp benn. man utuma loolu man ay xaalis boo ma joxoon tey dix millions. balaa soo boo ñëwee laaj ma ko li nga wax ci ay révélation man sama micro bii. ba ci bi coon gaaño waaw da nga ni ma yi nee ko. voilà. coow laa ngi soog a tàmbali. <coughs> wallaahi wal hasim ñiy wax nii yëpp di victimiser wu ci ñoom dañuy kàcc. wallaahi wax nga dëgg. yeneen coow ngi ci kanam yu gën a tar. wallaahi yoo xamante ne boo defee nag dina xàmme ñu bari yaa ma wax lii sëñ Dramé. waaw waaw wax jaa ngi ko wax. vidéo yaa ngi fii boo demee ci internet bi fekk ko fa. dama na ko na def très attention gannaaw boo xamee ne bàyyi ma ngi génn àdduna nit ñëpp daw wutal si ko bu nit ñëpp dawee jëm ci yow da ngay reculer dafa am benn promoteur bu waxoon lu am solo mooy Assis Ndiaye yàlla na ko yàlla yokk Assis Saali Ndiaye mu ne Sénégalais bu ñu la tegalee si ci kaw mu ne yow bul nangoo dam ci kaw waaye utal sées teg ko ci suuf te xam ne tout état foofu lañ la jëmee si dafa nekk xale papam génn àdduna ñëpp daw wut si ko foofu dafa war bàyyi xel boppam pour suba donc li ma ko doon waxal yëpp tey agsi na. Mhm. Mhm. pexe bu ne tey ñu ngi ko koy tegal. pour mu katal téeméeri juróom-ñaar kay jaar pexe bu ne ñu ngi ko koy tegal te wax naa sànq. coow yi fecc ma ne ko na daf coow place voilà voilà voilà. coow yi jàll wax naa ko sànq na ko na daf très attention parce que mbooloo mi mu a di liggéey tout état gars yi dañu leen laal. tout état moom xaw ma kañ lay doon waaye. da nga dégg na tout état da nga dégg na am nañ jaxasoo nañ réeroo am na. ci seen biir. tu état da ko dégg. sëñ Dramé ko wax de. billaay barkeel ci yàlla Mouhamed say wax laa ragal. tu état da ko dégg. maa ngi koy bàyyi xel man. parce que sénégalais ci liñ ne yëpp muy tas mbooloom Wally Seck mi fay ko mu dem toog fee comme mel ni ay moromam ñaata at ñaata Wally Seck ñu fu mos a jaar. bari ñaata Wally Seck ku bëri bañ na noonu la nga dam jël siège dam tooge côté. wala léegi sëñ léegi ku yor ku mel noonee. <coughs> bëgg ñu wër ko ci protection. Mhm. ñàkk ko. ba dara du ko xat waa ñekk ko mën nay nekk ci kaw moom d'abord mu xam ñàkkat bi kan la parce que nag du ku tiim bant rek yettikat la la maanaam du koo gis mu yor ndawal rek nga ne ko buuse fooy <laughs> nga ne ko kay rayal ma soow nag mën na yor ndawal mën a dekk sax lekkat ndawal te du doon buuse kon dafa bëri ñoo xam ne tey mën nañuy wax bu ñuy wax sax ci waali sekk di kat kati wala ñuy caddi caddi wala ñuy nàngam ak sëriñ yi nga xam ne sëriñu Portugal lañ dégg nga yor seen ay kii yu baax am sa kat-kat yu normal xut sa étage bu baax ne ci say mbir boo ñëwee fekk fekkee kenn deux fekk fa kenn trois fekk fa ñu ne ca kaw mel ni yàlla leen yónni ci xaalam bi donc ñooñu dañoo organisé wu donc organisé wu ak lijaaba bokkul organisé wu ak xam-xam bokkul su ko defee nag ñooñu dañuy fexe di am seen un million seen deux million di am ñu leen di waxal léegi nag ñoom ak ñooñu ñuy sànq sénégalais yi donc kon sénégalais bi pour mu jot ci lim soxla du yomb léegi nag ku mel noonu pour ñu ñàkk ko dafay pare nangoo génn. wala même budul moom sax. voilà kilifa gu bëgg jëflante ak yow rek pour nga ñàkk ko ba. moom ak ku moom yëpp képp ku bëgg ñu ñag la wax naa ne am na ndomb gu fi nekk guñ tuddee yar say noonu goo xam ne boo ko takkee ñetti nga wu lay doon xamul ku lay fexeel ci xat mi lu moom xaalam bi dégg nañ na torox na mbaamu dee. xamul ku lay liggéey lu dafa dee. yar say yar say noonu la tuddu beneen ba ci tegee mooy boo doon histoire ak nit mu jàkkaarloo ak yow buy histoire ak moom mu daw jëm si yow pour dóor la wala mu joxoñ la wala nangam ci suuf nga koy gis moom. allahu akbar loolu nag ñi min xàll bi xam nañ ne yàgg nay xam. Mm, mm, mm, am na parce que daan dal nit mu daanu pour mu jog il faut nga jël sa baaraam bi jam ko ci gannaawam mu soog a jog loolu ñëpp xam nañ ko. beneen bi ci tepp itam mooy protection am na beneen bu ñuy liggéey. mais boobu ñu ngi koy liggéey moom it direct lañ koy liggéey gàllaaj bu ñuul la dafay am pousa am ay bagage am ay bagage ci biir waaye yooyu bu ñu koy liggéey guddi lañ koy liggéey waxtu lëndamit lañ koy liggéey buñ koy liggéey ki koy liggéey warul sol yére maanaam doo sol loolu seulement nii dëgg bu bu ñuul kuk te am naa ci yu bari yu ma si doon liggéey mais nag gis nga buñ la ko liggéeyee ba pare boo ko xasee ba tey protection bu ànd ak pouvoir la. boo ko xasee ba takk juróom ñaari ngaw nga koy def. après ndomb yi day am seetu ci gannaaw. Mm-hmm. en même pas day am petaaw mais gis nga boo ko boo ko mbooloo mi lu mu bari bari bari bari lu nit ñi bëri bëri bëri ak daraja ju ñu mën a am boo ñëwee da leen di rékki. Mm-hmm. rékki muy boo xasee ba ñëw nit ñëpp yow la ñuy jublu. sëñ bi ko borom këram wan gannaaw jigéen ji borom këram wan gannaaw ba mu jaaxle lool. <coughs> wan ko gannaaw dem takk jeneen jigéen wala wan ko gannaaw faaleetu ko wan ko gannaaw defalatu ko wan ko gannaaw séqatul ak moom dara. waaw kooku lañ tuddee nopp. Mm-hmm. ki koy def. nopp lañ koy def maanaam nit dana nekk jëkkëram ba mu yàgg mu xëy woon ko gannaaw fekk dañ leen tàqale dana nekk jëkkëram ba mu yàgg mu xëy woon ko gannaaw fekk raba ko def dana nekk jëkkëram ba yàgg mu xëy woon ko gannaaw fekk dafa am leneen lu dox ci seen diggante lu bokkut ak ñaar yi yëpp benn waaye nag sëy damaa wax sànq ne képp ku ci bëgg sëb sëy dëgër boo duggee ci sëy bi fagarul boo nee ci sëy ba mu yàgg nga yëg na fagaroo dawal dama fagaru fagaru bi nag mooy dama ne man Mouhamed Lamine Dramé muy ci góor muy ci jigéen bu fekkee da ngaa bëgg ku góor ki yow ku jigéen ki ngeen di sëy nga ñëw ma ne la jarul jarul dem miir jarul signé ñëwal ma wax ak yow ñu signé ma yow contrat ma jox la la ma laa jox heure boo déggee si jëkkër takki jabar ñëwal ci man na ma yow la nga ma waxoon amul tuddee ma xajam drame bi. ci yow rek lay yem kurtu. ci du dam feneen. du dam feneen du laal waaye yow tamit beneen jigéen moom pare na ci. loolu de mooy noog dëgg. waaw foofu moom amul sama dem te ñëw te secret bu yéeme la sax ñëw moo saxoo loolu ci boroom kër yi nee nañu gërëm nañu la ci li ma fi waxoon. Mm. mooy jàmmi biir kër gi. Mm. njaboot gi am na ci kër yoo xam ne nee nañu wax dëgg yàlla xeexuloo bee xuloo bee coow li mm. jeex na. wallaahi mag ñi secret boobu lañ yor. wallaahi ñu commencé def ci kër. jàmmam jàmmam. waaw parce que bu njëkk mag ñi daan leen yor ñetti jabar ñeenti jabar kenn du dégg dara famille bi nga am fukki doom ak nangam ñëpp nekk benn nangoo toppante ñu liggéey bu nawet bi wàccee ñoom ñëpp koy boole taxaw jox la dala papa déglu. donc nag tey kenn amul dara waaye tey la coow yi gën a bëri tey la problème bi gën a bëri li ko waral nag mooy secret yi am na waaye sirru bi mu wàccatu ci ñoom war a wàcc. xam nga damay wax ne maanaam li ñuy wax euh, euh, comment euh, li ñuy wax mystique. Mm. dafa am lu ñuy wax nag li jaaba. Mhm. lijaaba nag moo commencé raar moo commencé manqué. Mhm. yàlla nangul la li lijaaba waaw parce que man ngay dem gis ku yor bagage yu bëri te gars yi léegi dañuy nand bu leen leeral ne euh, Sénégalais dañoo bëgg a jommi booy ñëw ay reen yu bëri la ñuy jóor jóor ay xob yu bëri jóor ay xànc yu bëri xut ñetti ponkal booy toog da wax ñu tim la nan la moom kay nii nanga gis nga sëriñ ci la gën a rëy làmmañ fu ne ci télé yeeg internet yi xamuñ dara. waaw man li ma jaaxal mooy sëñ eh, moom boo nee ay hémorroïdes ak ay yooyu ay ndoxu si ay yooyu du ma dégg nga di ci wax. waaw parce que xaw ma ko mënu ma koy faj. aylaay moo tax xam nga nit lu mu xamul du ko wax. mais sëñ bi sëriñ ci léegi lépp la ñuy faj. ah man de wax dëgg yàlla mënu maa faj hémorroïde mënu ma faj tension. ay ndoxum cité mënu ma faj cité mënu. ay diabète as as ma sax moom maa ngi ko am mu may xaw a it mënu koy faj yooyu yëpp mënu ma koy faj man daal mystique lay def ci gàtt. ñaan yàlla. waaw kay loolu rek lay liggéey amul leneen mystique daal buñ ci toogee bu dee xëccoo la su ma la ne diw mii da koy gañe bul damal tëdd nelaw. sëñ bi ñeenti weer ci ginnaaw tuddoon naa fi benn komba waaw. nga ne mbër moomu day xaw ma mooy daan xaw ma dañ ko daan waaye yàqu na ba mhm. mbër ma yàqu na. waaw. émission yaa ngi sur BG TV dugg leen ngeen tàppe mhm. Cheikh Mouhamadou Lamine Dramé borom béy bi. Mhm. tàppe mbër moomu di Balla Gaye je me rappelle bi loo xam ci combat bi nga ma xaw ma dana daan wala dinañ ko daan de. waaye mbër moom moom xam naa ne yaram moo yàqu. ndeysaan waaw loolu mystique moo koy def. Mm-hmm. xam nga dégg leen nga gis mystique. Euh, jàpp nit yóbbu ko foo xam ne donc nag làmb dama ko xawoon a moytu bu dama noonu sax dootuma ci mm-hmm. dugg mais mystique day téye nit téye boo xam ne tey yow loo jàmbar jàmbar du feeñ loo dëgër dëgër du feeñ loo am am xam-xam du feeñ parce que dalay dalay daan ba pare dalay yàq ba pare nga soog a comprendre. maanaam gannaaw boo daanoo ba pare ngay soo a comprendre te itam nag wax dëgg yàlla waxoon naa ko bi combat am jàllee gaa yëpp di ko classe na ko noo waroo da dem ci Aziz si nanga mën leen daf leen ndànk Aziz Ndiaye li mu jëriñ Balla Gaye 2 ci dundam xamul ku ko mën a jëriñ li mu ko jëriñ parce que jëriñ nit muy nga yëgati sa ay millions yëgati sa xalaat yëgati sa lépp jox jaral mu jaral la lu nekk mais bu fekkoon ne déggalut ko it amaana loolu yëpp du mën a am parce que mbër yaa ngi ànd ak mbër bis waaye nag mystique moom am na maa ngi leen da conseil nañ jéem a dem dafaru defar loolu xool ban yoon lañ ñuy jaar pour taxawalaat seen bër parce que Balla Gaye de bu ñu ko jàppalee dëgg mën na jalaat waa des arènes. sëñ Lamine man mi bëgg ubbeeku nag. bu fekkee dangaa ngaa bëgg a ubbeeku te yàlla dimbali la nga nekk ci barab wala nga nekk ci gox wala nga nekk ci place boo xam ne fa nga ko taxawal te place ba doxut yàlla dimbali la nga bëgg ak ubbeeku da ngay fexe nga oo Mouhamed Lamine Dramé su ngeen waxtaanee yéen ñaar ba ngeen déggoo ci kàddu dina la defaral garab yoo xam ne man nag dama lay wax réalité su ma la xoolee moom leer ma ne mën naa lay faj ci sa ubbeeku dama lay wax su fekkee manuma laay faj dama la ne manuma laay faj seetal leneen nga dem sa yoon waaye suñu yàlla boolee bu ñu déggoo su ma la ñaanalee da nga gis beneen soppeeku bu bokkul ak bi nekkoon ci yow. suñu Mbaye Diagne de eh, géeg naa fi ay waxam am sëriñ bu jug ne Mbaye Diagne maa ko fay. ba mbir mi sax mel na ni dëgg la ndax daanaka mbay footballatul pratiquement Galatasaray. Serigne ci coolee ne fi ne da wax rek waaye baraada boo xam ne dañ ci attaaya ba pare bàyyi fourneau bi ci mbedd mi Serigne ci mënuñ koo bu fay ko waxuma la ak dafay ak nit. Mm-hmm. coole wax jee fi ne rek li kat appareil ci Serigne kenn xamul ni mu toll. Mm-hmm. waroon nañoo mën a dem toogi ñoom ñëpp liñ li fi kat appi ci Serigne ren. wax dëgg yàlla nag li leen yo su leen ah, vaar bi waaw waaw non su leen fekkee ngor rek la ñuy wëy laa rek la ñuy wëy ñëpp waroon na dollaat ci àll bi dem ruuji waaye nag Sénégal yi malheureusement yàlla ñëw pour leeral sëriñ ci ne carrément lii ak lii mu am donc mbay maa ngi koy ndokkel maa ngi koy ñaanal yàlla moom moo ko dugaloon ci football fu mystique nag dafa am ci biir xeexu équipe nationale dafa am xeex ci mystique loolu moom il faut ñu nangu ko. Mm. dafa am xeex ci mystique même bu dul équipe nationale Sénégal yi noonu la ñuy def. luñ bokkul na rek neetaan yi rek xeex baa ngi mel ni pour nga gis Sénégal boo xam ne day ñefe mën a football mën lépp mais bu ñëwee équipe nationale balaa def at ñaari at sax dootoo bugg a xam ne kii moom la ci coono yu baree bare bëri yu muy jànkuwante donc nag li xew mooy moom xale la lë bëggal na Sénégalais yi yàlla dimbal na ko ci côté yëpp moom bay Diagne maa ngi koy lancé défi na ko Cheikh Lamine Dramé waa ji dëkk Mbour nekk Saalum mu ne nga ñëw moom mu faj la ba nga wér bu la neexee sax bu ko faj. nga amaat jotaat sa place. nga ñëw mu defar la li li war a nekk ci yow yëpp mu wax la ne damal mbay damal daf lii dafal lii dafal lii nga ñëw dam daf loolu mu faj la ba nga wér. te laajoo ci dërëm. du ma jox benn dërëm na ñëw rek mën ko mbay mu a ma ne ko lii ak lii ngay jënd damal jënd ko moom muy dem jëndal ko boppam ca daral ba ma jox ko tegtal yi mu ñëw ma lëggeel ko. billaahi wallaahi wal xasim lu ma ko wax su ko gisul na génnaat dam toogaat ci télé na wala waa ji la ma waxoon amu. sëñ Dramé lay tàggoo sëñ Mouhamed Lamine Dramé borom bay bi. li may tàggoo mooy di nuyu mbooleem koo xam ne tey yaa ngi senegal yaa ngi doon seetaan waaw yaa ngi doon seetaan Mouhamed Lamine Dramé di leen ndokkel di leen wax ne buur du mu dëñ mukk di wax ne Sénégal laa Sénégal rek laa bëgg. Mm-hmm. maa ngi wax ne Sénégal gii buñ ko seetaanee dana tàkk. Mm-hmm. te itam wartu tàkk. yi annoncé ñun ay doomi Sénégal lañ. Mm-hmm. suñ njaboot suñ yaay suñu baay suñ lépp a fi nekk. nañ waxtaan ci suñu biir dimbalante ci suñu biir te xam ne suñu réew mi bëriwut yaatuwut. foofu nag laay sukkandikoo ne Sénégal gii maa ngi koy wax Macky Sall yàgg naa koy wax nag waaye Macky Sall ay nitam dimbalewuñ ko. Ah, toog nga ne wax ko bëgguñ koy dimbale it nag seen poste rek lañ fi neel. Macky sàlla maa ngi koy wax na ko te li ma koy wax nag bu ko deful élection législative si la koy commencé gis nag. Ah, waxoon nga ko yi <laughs> li ma ko li ma leen di wax maa ngi koy wax Marème Faye Sall direct na ko nag na génne ñetti nag waaye nag nag wi nag daay day xonqam daay wexam day ñuul loolu moom du ma ko wax si site internet yi. Mhm. waaye nag su fekkee soxla na ko mën naa koy wax bu pare te bu may ñibbi bu ko neexee bu ma jox 1000 francs waaye nag li bëgg mu xam mooy na saraka ñetti nag waaye nag nag yi na muy mel nag du ma ko wax moom si site internet. Mm. waaye bu fekkee loolu amul dañ gis si Sénégal mbir mu yéeme mu doy waar boo xam ne lamit Dramé moo leen ko wax te nag bu boobaa si seen kaw ñoom ñooñ état bi ci lay dal. su boobaa li ma leen da wax ni si seen kaw lay daal te boobaa danañ gis na li ma leen waxoon ñëw na maa ngi la ko wax Marème Faye Sall ngir sa njaboot ngir sénégalais yi. salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm wa salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.